mbokk yi ànd ak ñun ci jotaayu fiq ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jëggalu ci yéexu bind bi tey ndax yàlla ak ajjuma ji <clears throat> di rafetlu liggéeyu ñi nga xam ni ñooy suñu admin yi muy suñu doom Mouhamadou Lamine ak suñu mbokk Mouhamed Muxtaar eh, tabaarakallahu ñu ngi leen di encourager di ñaan mbokk yépp ñaanal leen yàlla defaral leen seen zaahir ak seen baatin ak mbokk yi nga xam ni ñu ngi ci groupe bi yépp di encourager liggéey bi rawatina suñu magu bopp soxna Mariam Saaxo ngeen ko xam ci caan tabaarakallaahu jot nañ ñaan yi neex nañu lool ba mu ëpp yàlla nañ ko bokk ñun waa groupe bi yëpp seddoo bi xurmati rasulillahi sallallahu alayhi mu mel ni démb ñu ngi doon waxtaane xaaji attey sharia ñu tuddoon waajib tuddoon manduub tuddoon xaraam tuddoon makruh tuddoon mubaax ñu digoon leen ni danañu waxtaane bu nekk ci juróom yile cik faram fàcce tey nag ñu bëgga waxtaan ak yéen ci waajib waajib ci luga mooy firi assaaqiqu wallaazimu yàlla nee na fa ida wajabat junubuha ay saqatat wa lazima makaanaha su dara wadde ba pare sax fa loolu la arab di tuddee waajib bu dee ci al istilaax alsharci huwa ma amara alshaaricu bihi ala wajhi al mooy lu sharia walla ashaariu ki yàlla digle ci anamuk waral ci anamuk takkooloo bu ñu nee lu ñu digle ci anamuk war ñu ngi ciy jëlee ñaari ponk mooy am ci mbir mi pour mu nekk waajib bu njëkk bi mooy al amru bil fi'li digale digale jëf ndigal jog na ne nañ jëf dara ñaareel ba al ilzaamu bi waral jëfee ndigal ga mën nañ laa digal waaye ñu digal la ba pare ne la ndigal li nag lu ñu war a jëfe la mooy tax mu nekk waajib bu ñu waxee ñaari ponk yooyu yeneen xaaj yépp dafay génn xaraam ak macro génn nañu lu tax ñoom duñ luñ digle ñu def ko lu ñuy bàyyi la maanaa yu ñuy bàyyi la xaraam dañ koy bàyyi deesu ko def macro dees koy bàyyi desu ko def bu dee mën dóob nag même su dee luñ digle nga def ko la duwul ci anam ak waral mu baax nag mooy loo xam ne digaluñ la nga def ko terewuñ la nga ba ko bu la neexee def bu la neexee ba ñu waxoon ne xatteb waajib <clears throat> mooy loo xam ne soo ko defee ñu fay la yiw soo ko bàyyee xeeyoo mbugal waaye ñu yokk ci nag boo ko defee imtisaalan yuzaabu faailuhu imtisaalan maanaam boo ko defee ngir temm mooy ngir ne yàlla ma sant ma def ko xam nga kii jóg ñuy julli tisbaar mu bokk ci kabar ruko sujjóot yépp mu def ko ba julli ga jeex waaye yéene wut ko woon a def ngir ne jaamu yàlla la ngir ne yàlla ko ko sant kooku julli wut moo tax duñ ko ca moo tax baatu imtisaalam bi am solo léegi nag <clears throat> waajib eh, am na ay xaaj évidemment waajib buñ ko waxee mooy lu war lu war nag dinañ ko tuddee farata ci usuli yoon yi dinañ ko tuddee yeneeni tur bu la neexee nga ne fard bu la neexee nga ne waajib waaye nañ utiliser baatu waajib euh, ci ci ci istilaaxul jumhur évidemment parce que al ahnaf am nañu beneen waaye nañ euh, ñu ngi ci jumhur wax waajib bi ictibaari daatihi yanqasimu ila qismayni waaw lu war ci jëmmi boppam ñaari xaaj la lu war loo xam ne moom rekk nga mën a def mënoo def leneen moom ci jëmmi boppam moo war ñu def ko mënee su ko remplacer leneen mooy waajib muayyan mooy lu war lu ñu ràññale lu mel ni julli dara mënu ko remplacer lu dul julli ga ci boppam lu mel ni koor dara mënu ko remplacer lu dul koor moom koor lañ wax nga def ko joxuñ la choix ci koor wala leneen ak waajib mubham mooy ñaareelu xaaju waajib bi ictibaari daatihi waajib mubham mooy waajib buñ lëmal lu war te te lëm mooy waajib xayru muayyanin lu ñu waral waaye ràññalewuñu mooy lan mooy ki nga xam ne kafaara daf koo war kafaara ga waajib la waaye ya muy mën a def ngir kafaara yu mu mën a tànn benn ci yooya la masalan kii dafa waat ne wallahi bu subaa danaa def nangam suba jot defut lam waatoon dañ koy wax ne ko da kafaara buy kafaara am na choix def benn ci ñetti yii mooy goreel jaam jaam moom xamatut waaw ah, amatul fi mu amit reconnaître luñ fa reconnaître ko alhamdulilah jaam amatut bu dee ca saalum nag ñi ñuy wax ngàllo ga fañ leen di tooñ rek waaye yàlla rek tabaraka wa moom lañ nekk di jaam ñeel ko ngàlloo yàlla rek a ko xelloo keneen ku yàlla doo ak doo jaam ci kanamam mën ngaa goreel jaam ci jamono bi jaam di am ñaareel ba leel fukki miskiin ñetteel ba xodd leen kon lii mooy waajib mubham mooy waajib farata boo xam ne ràññalewuñu ko benn ci ñett yi boo ci def rek def nga farata yàlla mu ne laa yuaxidukum allahu billaxwi fi aymaanikum walakin yuaxidukum bima aqadtumu leymaana fa kafaaratuhu itaamu asharati masaakin min awsati ma tutcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba naka noonu tamit koo xam ne danga def ci yi tere ci xarmal ku aj yiñ ko ne bum mu ko def wala kuy kuy nga def ca yoo xam ne dafay waraluk pay faman kaana minkum maridan aw bihi adan min rasihi fa fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusukin am nga choix ci goor wala sadaqa wala gàtt kon waajib mubham a ngi noonu wax nañ ne kon ñaari xeetu waajib bi itibaari daatihi waajib ci jëmm boppam ñaari xeeti waajiba am mooy waajib muayyan ak waajib mubham waajib bu ñu ràññee bu ñu ràññale ak waajib bu ñu ràññale hut waaye buñ seetee waajib bi itibaari faa'ilihi yow miy def waajib bi nag ñaari xaaj moo am mooy waajib ayniyun ak waajib kifaa'iyun waajib boo xam ne yow rekk yaa ko mën a def keneen mënu ko defal ak waaji boo xam ne bu ko keneen defee mu wàcc la waajib bi nga xam ne yow dong yaa ko mën a def keneen mënu ko defal mooy julli juróom kenn mënu laa julli tisbaar ba tàkkusaan yow rek yaa ko mën a defal sa bopp bi nga xam ne keneen mënu koo defal weeru koor kenn mënu la ko xoor yow rek yaa ko mën a xooral sa bopp bu jullit yépp wooroon yow wooroo du tax woor wàcc la bu jullit yépp julli woon yow julli woo du tax julli wàcc la waaye am na waajib boo xam ne nag bu ko yenn ci jullit yi defee mu wàcc la yow donte defoo ko maanaam waajib la boo xam ne xeetu yépp lañ ko teg lu mel ni sang ak sang ak jullee ak rob néew sang néew wala sang ko wala jullee ko wala rob ko yii nii ñëpp la war fu néew dee ci àdduna ña ko xam ci jullit yi mën koo taxawee ñoom ñëpp la war ñu taxawee ko suñ ko bàyyee ñoom ñëpp am bàkkaar waaye su ko ñenn taxawee ca ña ko xam wàcc ña ca des loolu it nag lépp loo xam ne xeet wi dañ koo soxla économiquement walla euh, euh, naka la tuddati euh, socialement dañ koo soxla walla intellectuellement dañ koo soxla loolu xeet yu yëpp lay war gis nga yu mel ni wàllu mbay wàllu ñaw ak wàllu yooyu nga xam ne xeet wi dañ koo soxla ndax bu ñawut kenn du sol yére buñ bayut kenn du dund moo tax ñiy bay ñoom ñooy taxawee farata le lépp loo xam ne de xeet wi dañ koo soxla xeet wi yëpp la war maanaam nécessité la xeet wi yépp la war su ko ñenn ñi taxawee mu wàcc ñi ci des looloy waajib kifaa yi kon jàng nañ waajib bi nisbati bi itibaari zaatihi jàng waajib bi itibaari faa'ilihi léegi nag waajib bi itibaari adaa'ihi waajib tamit ci bu ñu xalamee joxe ga jooxe ga dafay séddali ko moom ci ñaari xaaj waajib boo xam ne dañ koo war a joxe ci waxtu ak waajib boo xam ne amut waxtu waajib wi ñu war a joxe ci waxtu mooy waajib bi nga xam ne sharia daf ko wutal waxtu wuñ xam ni ki julli tisbaar dafa am heure takkusaan dafa am heure timis noonu gee noonu suba noonu inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquta waajib bi nga xam ne nag amul waxtu mooy sharia limité wut waxtu ràññee ko wuñ ko war a def lu mel ni koo xam ne dafa nidir ne dana saraxe téeméeri junni duñ ko wax ne ko tey nga koy def wala suba nga koy def war na ko saa yu ko defee def na ko wàcc na mooy amut waxtu wuñ ko war a def wala koo xam ne kafaara daf koo war duñ ko wax ne ko tey ngay joxe fukki Eh, yére yi ngay solal miskin yi walla tey nga leen di dundal mooy seet kañ la ko mën mooy al mooy sharia waxtaalut waxtu la defalul waxtu wu ñu ràññee waajib la kon am na waajib boo xam ne fa am waxtu ak waajib boo xam ne xamut waxtu waajib bi nga xam ne it dañ koo waxtul mooy dafa am waxtu ñaari xaaj la mooy boo xam ne waxtu wi dafa xat ak boo xam ne waxtu wi dafa yaatu alwaajibu almuaqatu yanqasimu ila mu muwassaun wa mudayaqun waajib boo xam ne waxtu wi fa yaatu ak waajib boo xam ne waxtu wi fa xat waajib bi nga xam ne dafa yaatu mooy waajib bi nga xam ne mën nga koo joxe ca waxtu wa jooxe joox def ci it weneen xeetu jaamu yàlla ci xeetu maanaam weneen jaamu yàlla woo xam ne ci xeetu waajib boobu la c'est-à-dire <clears throat> waxtu wi mën nga cee def li la ci war ba pare lu bokk lu mel ni li la ca war ca biir waxtu wa ana luy loolu julli juróom xam nga mën ngaa julli tisbaar ci waxtoom ba pare julliwaat ci ràkka yu toll ni tisbaar ci biir waxtu wa te waxtu tisbaar du jeex kon waxtu waajib la bu waxtoom yaatu naka noonu xeetu julli juróomi bu ca nekk julli juróom yépp mën nga caa julli julli juróom nga maanaam ñeenti rakka la bu dee tisbaar tàkkusaan gee mën nga caa julli ñeenti rakka yi tisbaar julli ci sax lu ëpp loo la te waxtu wa du jeex ci rakka naka noonu suba gi nga xam ne ñaari rakka la timis gi nga xam ne ñetti rakka la waxtu fajar mu ngi commencé bi fajar xare di jeex bijjant bi di fenk diggante boobu ñaata raaka nga ci mën a julli bari na mooy waxtu wi daal gën naa gudd ci langa ca soxlaa def gën naa gudd la nga ca soxlaa def waxtu wi nga xam ne nag waajib bi nga xam ne nag waxtoom dañ koo xatal mooy alwaajibu alladi laa yasau illa al ibadata zaataha waxtu wi nga xam ne jëmmi jaamu yàlla gi kottu nga ca mën a def ci xeetu jaamu yàlla googu le nag lu mel ni xoor weeru koor weeru koor mënoo caa xoor lu dut weeru koor ndax weer wi yépp jamono jiñ ciy woor mooy bu fajar xare ba timis di jot te loola woor weeru koor kot ta ca xaj geneen jaamu yàllaay koor xaju ca bu dee tisbaar nag geneen jaamu yàllaay julli xaj la ca génn nañ foofu ñeenteelu xeetu waajib mooy alwaajibu bi ictibaari taqdiirihi waajib ci xalamu nattaleen moom it yanqasimu ila qismayni waajib muqaddar wa waajib euh, gayru muqaddarin ay gayru muhaddadin maanaam ci wàllu limite dafa am waajib waajib boo xam ne dañoo limité limba ak waajib boo xam ne limité limb lu mel ni julli limu rakk yi dañ leen a limité tisbaar ci ku tukkiwut ñeent lay doon tàkkusaan ñeent timis ñett gee ñeent suba ñaar dañ leen a limité mënoo def lu ëpp mënoo def lu wàññi boo teyee def lu ëpp mu yàqu boo teyee def lu manqué mu yàqu soo tayee wut euh, nga nga nga nga sos maanaam nga euh, yokk la ca euh, manqué wala nga sujjootal la nga yokk ak waajib boo xam ne nag limité wuñu li euh, nombre ba ana luy loolu lu mel ni dépense bi nga war a jox sa sa jabar charia waxut la ne ñaar téeméer la war a doon par jour wala ñeenti téeméer dañuy xool lan moo jaadu loo xam ne mën naa dundal njaboot gi nga joxe ko dépense su fekkee mën nga lu ëpp loolu bu la neexee nga def ko su fekkee amuloo it nga joxe li nga am kem sa kàttan li yàlla di wax ne wa man qudira alayhi rizqu fal yunfiq mimma ataahu llah waaw ah. walla rafetal jëm ci nit ñi amut limite jotaay bu nekk ak rafetal ga ca yelloo rek ngay def wa linnaasi xusnan waxuñu la bës bu set demal ci diw wax ko fukki yoon wax ju rafet limité wuñ ko saa yooyu wax rek na nekk ne wax ja baax lay doon ak lu rafet wala baaxee way jur waxuñ ne bés bu nekk ñaari yoon nga ko war a defal wala ñetti yoon yaay seet la nga xam ne moom nga mën kem talaaya la nga mën nga def ko waaw ah, te mu dëppook ni ko sharia bëgge kon waajib bi itibaari taqdiri yi dafa am waajib muqaddar ak waajib xayru muqaddar Hmm? kon ñeenti xeetu waajib a ngi ni mbokk yi waajib boo xam ne waajib bu ñu ràññale la ak waajib bu ñu lëmal ñaareel ba mooy waajib boo xam ne waajib jëmm la waajibu jëmm la yow ci sa jëmmi bopp la war ak waajib boo xam ne waajib kifaa yi la bu ko ñenn defee mu wàcc ñi ci des ñetteel ba waajib bi ictibaari adaihi muy waajib boo xam ne dafa am waxtu ak waajib boo xam ne amut waxtu waajib bi nga xam ne dafa am waxtu it dafa am bu waxtu wa yaatu am bu waxtu wa xat waajib bi ictibaari taqdirihi mooy waajib boo xam ne dafa am limit ci lim ak waajib boo xam ne limité wuñ ko waajib xayru muhaddad tabaarakallaahu dafa mel ni waaw am na ñaar fukki minutes dañu bëggoon rekk indi ay masail yu aju ci waajib soog a tëj waaye waxtu yi dafay gudd lool te bëgguñoo guddal defee ñu leb ko ba suba ñu indi masail tataallaqu bil waajibi parce que bu ñu naan dafa am bu yaatoog bu xat mooy wane ne am na lu sharia di teg ci ndodd mu kallaf bi ci bu bàyyee lu yaatu bam xat walla ci bu bàyyee lu xat defut ca lam ca war a def walla ca biir lu yaatu ba sax mën naa am mu xat ci misaal rek ñu tëjee ko mooy koo xam ne dafa dee te julliwut tisbaar ci njëlbeenu waxtu wa ndax dañuy jàpp ne ku mooy yàlla la tisbaar na di waaye moom julliwu ci njëlbeenu waxtu wa balaa waxtu wa di jeex mu dee ndax moom dafa am ñu ne ça dépend su fekkee ne yéene na ko julli balaa waxtu wi di jeex bu dee ca diggante ba mooyut yàlla ndax yéene woon na ko ñu ne waa su fekkee ne yéene woon na ko te xam ne mënta nekk ñu ne kooku yéene lan mooy xam ne mënta nekk mooy su fekkee dañ koo war a rey bu trois heures jee jotee dafa def crime boo xam ne dafa am euh, euh, euh, li ngeen di tuddee capital penalty mooy peine de justice ne diw trois heures lañ war a lañ ko war a faat mu naan damay bàyyi balaañ maa faat xam naa mën na waa mu toog ba trois heures giñ ko war a faat julliwut ko ñu rey ko donte waxtu wi jeexagul dafay am bàkkaar parce que xamoon na ne bu trois heures jotee dañ koy faat yàlla na yàlla musal ñu ci peine de mort musal leen ci boole ñu defaral suñu waahir boole ñu defaral suñu baax baatin loolu benn la ci masail tata'allaq bil waajibi ñu ngi teg suñu loxo foofu ba suba ak jàmm di ñaan suñu baram boole ñu defal dégg defal ñu topp defaral ñu suñu zaahir defaral ñu suñu baatin bi barakati mawlana wa xabibina sayidina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam taala wa barakaatu mbokk yi dégg sunu kàddu li xew at mu jot muy xew-xewu lislaam moom lañ leen di fàttalil muy annuel dîner fundraising bu mag boobu nga xam ne mu ngay xewee ci Staten Island ci taxawaayu fa buñ ko waxee nag sunu xel yëpp def ci imam Muntaqa saako borom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag gi ki miin Makka ak Medinatul Munawwara nee naa la mun Muntaqa saako mooy éviter mbokki jullit yëpp ci Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue ca Staten Island nee naa la masjid bu mag boobu imam Ndaxa Sakho ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy wootee muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servi la nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla imam Muntaqa Sakho bis ba si na kañ lay doon yemook samedi décembre 23 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg na ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee la ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam na ne satan ay leen lay xewee kon mbokk yi lu ci waay am te bëgg ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 265 77 03 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne ni tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg a jàng sa lislaam da mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla Imam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko kenn tardé bis baa ngi noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag rawatina consulat ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le 23 décembre fii ci Staten Island